bépp mbokki internet yi ñuy seetaan fii si Dental TV comme ni ngeen ñuy gisee ñu ngi waat fii si Kër Massar ñëw waxtaan ak sénégalais seen gis-gis si Macky Sall lii nga xamante ne wàcce na ko ci suba jii li danga may topp rek ñu xool sénégalais nan lañ ko dundee. dund lu métti nag Sénégal wax dëgg yàlla di nuyu sénégalais yëpp di ñaawlu atu bi nguur gi dekk di wax ne lii wax dëgg yàlla xalaatuñu woon lii si président Macky Sall. ndax président la boo xamante ne ku ñëpp jox cër la ku ñëpp respecté la amaana bu la say peuple respecté bee da nga leen di jox tamit gëdd bi tey ji ay coow yu sew wala coow yu ndaw bu mu tax nga reporté suñu élection ñëpp amoon yaakaar si élection yi la 25 ñëpp nañ tàqali ko xool ni ñuy jéem a développé suñu réew comme muñ nañ 12 ans yoo xamante ne nag ñu ngi koy dund mu metti lool defuñu lenn attaqué wuñ kenn koo xamante ne lu jëm si nguur gi la lu dul li ñuy wax loo xamante ne lu nee si ñun la lu ñuy dund fii Sénégal di ñaawlu nag lii mu def bu baax di ñaawlu bu baax di di encourager sénégalais nag di leen wax bu ñu bàyyi nañ gën a góorgóorlu rawatina ñun jeunes yi nañu wàcc ku si gis buntu nag boo mën a génnee Sénégal na nga génn Sénégal te xam ne Sénégal réew la boo xamante ne day tardel jeunesse day feñaak loo jeunesse xam nga jeunesse bu toll ni man 12 ans si ren tey jii nii bu ma taxawoon tey jii nga dégg laaj ma 100000 dinaa ko laaj cinq personnes yoo xamante ne bokkuñu fu ñu jugee te loolu métti na. ñu nekk ay ndaw nag nekk Kër saa nekk banlieue di di daan su di doo suñu waat bëgg lu ñu am mënuñ koo am bëgg fukk juróom tëñu ñuy xalaat loo xamante ne ëllëg am nañ yaakaar ni kenn bu ñëwee ñun jeunes yi gis suñu bopp comme que fi nekk nekk na fi ba ni mu fiy jugee ñun jeunes yi mënuñoo gis suñu bopp xaw ma fu mu koy jaarale la moo dul yegsi si ñun xaw ma moom moo téye loxoom si ñun mais lii nag wax dëgg yàlla naqarlu nañ ko lool lool lool franchement monsieur le président Macky Sall naqal nañ loolu lii ni moom xaaruñ ko woon si yow wax dëgg yàlla. est-ce que xaaroon nga lii. non franchement xaaruma woon lii si Macky Sall quoi xaaruma woon lii man daf ma bett 2012 ba léegi ñu ngi sa ginnaaw waaw loo loo bay ñu góob loo bay ñu góob ñu nag yow muñal la di ànd ak yow di liggéey foo ñu dem di la tiitaroo di la ndamoo mais tey jii bu ñu demee ba toll foo xamante ne kenn ku ne da war a yëg sa bopp si réew mi mënatoo yëg sa bopp. ba tey jii nii ngay jëw di sàcc wala ngay wër di def loolu naka sudul noonu ñëpp caalit nañ mënatoo xàmmee gor bi ak géer bi Sénégal dem na ba instant bi mënatoo xàmmee doomu aadama yi ñëpp ñoo tollo instant bi ñoo tolloo mbagg kenn ku ne ngi doxaale xiif situation kër situation mbedd situation famille jàkka yi débordé kër yi débordé mbedd bi débordé état bi débordé loolu waa doxewul noonu jeunesse bi lenn rek lañ leen akise muy tuxum boon naanum sàngara sàcc te loolu du wareef nit ndaw boo ko bëggee dimbali da ngay xool la mu bëgg nga fekk ko si nga jàppale ko si loolu. ok ñu lay jaajëf. jërëjëf di kontaan si yéen nag di kontaan teewaay bi di lu émission ba nga di def di leen bëggee di leen ñaanal gudd fan ak wér ak wér la di wax nag ndawu Sénégal nañ taqaat tuba yi te xam ne waajur yi ñun lañ yaakaar nañ génn Sénégal bi bàyyi nag Sénégal ñoom ñu xool nuñ ko téewee ñoom ñu bàyyi nag Sénégal képp ku may dégg nag man Sarr doomu Kër Massar man kaayam laa dëkk doomu kaayam laa zenu Kër Massar boo demee sama koñ wallaay la xasim da ngay fekk booy ñu ngi toog huit heures la ñuy génn toog kenn ku ne yor sa kaasu café taal sa benn maboro mu lenn loolu danaa ngi soulager sa bopp boo ko a la mu ne damay soulager ngir fàcc samay stress tey jii boo toogee sa yaay di la laaj amoo loo ko jox sa papa di laaj amoo loo ko jox nga yeewu xool seen kër ba deux heures teguñu cin loolu bàyyi tey sa xol day laaj ba tey jii ni doomu adama du soxor dañ koy soxor loo kon nag balaa ngaa soxor loo defal ko loo xamante ne tey jii nii nii ëllëg dina mën a gis boppam waaw di ñaan nag jàmm bu bëri di ñaan jàmm bu bari waaw ah, ñu ngi lay fay soxna si bu baax a baax. bàyyi nga présenté. waaw ah, man maa ngi tudd Ibrahima Thioy di liggéey fii station Kër Massar waaw ah, fii laa nekk quoi ci station bi. wax dëgg yàlla di ci am mbetteel rek quoi di ci am naqar di ko métti lu bu baax a baax a baax baax a baax parce que peuple bi man damaa jàpp na ñun xam nga ñun ñooy sénégalais yi quoi ñun ñoom moom réew mi réew mi suñu réew la su demee ba moom mu war a ñëw jàkkaarloo askan ñu fal ko xam nga mu am 12 ans am am 7 amaat beneen 5 ans boo xam ne ñun ñoo yor suñu carte ñoo fal ko yaakaar naa ne xam nga ci biir loolu rek waroon na respecté ay kàddoom ndax dafa taxaw fii lu mat deux fois ba trois fois. xam nga ne man la 24 damay organiser ay élections yoo xam ne xam nga dama ciy génn xam nga sénégalais tànn ku leen neex kon waroon na mën a bàyyi ñun ñu tànn ku ñu neex mais am nañ mbetteel am nañ lu trop trop parce que na lu bu la neexee soir noonu on dix ans ci la bokk douze ans ci la bokk envie ci la bokk ñun mënuñu comprendre loolu quoi mënuñu comprendre loolu billaahi am nañ ñu naqari trop trop trop trop. mais ñëpp nee nañ kii Amadou mu mu teg xam na ne du jàll loolu moo tax mu annulé élection. mais loolu moom bu tegee Amadou Ba te du jàll loolu ne nañ ko nañ ko nañ ko lijjanti quoi loolu seen parti la bokkut ak leer loo xamante ni xam nga peuple bi ñoom ñooy choisir lu leen neex moom moo ko choisir te moom doyu ñoom la nañ ko lijjanti. xam nga mais nag yegg ba ci toll ni élection présidentielle ñaata président ñoo fi jaar lu mat quatre président xam nga mu nekk xale juddu après indépendance ñëpp koo fi xam nga mu ñëw ba nii ñu neex ñu dem ba heure boobu nag xam nga mu ñëw andil ñu nouvelle bi am nañ lu ñu métti am nañ lu trop trop ñoom bu amee lu ko métti moom ak Ba nañ ko lijjanti su ko doyul moom moom la mais élection yi nu mu demee rek dafa waroon am te man jàpp ci waroon a dimbale mooy conseil constitutionnel parce que réew toll na foo xamante ni man jàpp naa ne du ku la neex rek quoi mais boo nekkee président dafa am benn diran boo xam ne nga moom boo cee yeggee li ci des élection man damaa jàpp mbirum peuple bi président amul droit yokku ci yokku ci boo xamante wala benn une seconde boo xam ne moomul ko quoi xam parce que ñun ñoo moom réew mi quoi ñun ñoo war a choisir ki ne daal yéeme na ñu gis ne ba mu génnee ba léegi gisuñu kenn ku yëngu gisuñu benn ndaw bu jóg aussi. waaw parce que loolu loolu man li ma jàpp rek xam nga mooy sénégalais yi yeewu nañu. xam nga moom li mu bëgg mooy tout le temps rek moom dafa wax boppam ndax Macky li mu bëgg rek mooy nit la koo xam ne tout le li mu bëgg mooy problème di am ci dëkk bi perturbation di am ci dëkk bi da ngay moom yàgg sax da ngay jàpp ne kii nit la koo xam ne daal daanaka lu jëm ci wàllum xam ne moom ay bëgg-bëggam la parce que jàpp na xam nga peuple bi yëpp conscient xam ne kii li mu bëgg mooy prétexte boo xam ne da koy wut pour a dàq élection yi xam nga mu xam ne lii nii fii doxul mu dem ba mu yàgg mu ñëw indi ay affaire de conseil constitutionnel ak ak ak député député yooyu noonu ay député wàllu lañ moom bu ko neexoon moom su taxawoon ne eh bu leen ko ndax ñoom yàgg dañuy tax assemblée na di ko wax ne ñun ay député Macky Sall lañ kon li jàll nii man yaakaar naa seen sa ñoom ñoo ko bokk moom kii lañ nekk te dii a jeex soo gisee président Ousmane Sonko ay jeune bëgg ko ay ndaw bëgg ko xam nga mu nekk nit koo xam dafa conscient xam nga lépp lu mu lay wax lu nekk rek dëgg la ci moom xam nga nit dem ba bëgg ko moom dafa wuteek ñoom quoi waaw ban message ngay lancé sénégalais parce que lu mel nii dafa mel ni que fi am non mosu fi am c'est la première fois man de xale laa wax dëgg yàlla ndaw laa mais lii man maa koy door a gis xam nga te ñi ma waxtaan am la première fois xam ne réew mi ñun ko moom ñu war a wax nga xamante ne seen kàddu yegg na fenn bi xam nga ñu wax moom xam ne yi muy def ni amul njëriñ amul sens parce que réew mi xam nga liggéey na liggéeyul am na ñu jàpp na liggéey na am na ñu jàpp na liggéeyul mais yooyu noonu yëpp même buy dem xam nga day des ci biir réew mi quoi moom li waroon mooy mu respecté calendrier électoral yi xam nga fexe ba ñëpp ñu jéem a élection yi mu nekk élection yoo xam ne élection jàmm lay doon xam nga nit ñi falk leen neex quoi di xam nga nañ gën a focus rek buñ ci xam nga képp koo xam ne yaa ngi doon jàpp président Ousmane Sonko wala ngay ànd ak moom lii war nag mën a tax parce que lii junjoon na ko ndax ku ko yàgg suivre yàgg na wax ne yéen ngi seetaan Macky Sall mu ngi def lu ko neex te bu jigee koo ci man xam nga day day si yéen léegi nag jugee ko na si ñoom xam nga dem ci politiciens yi léegi nag mu ci peuple bi parce que peuple bi demee ba nga xamante ñoom ñoo war fal lu toll élection présidentielle nga gën a xam na ñun ñoom moom réew mi xam nga di xam nga Seydina Ousmane Sonko lépp loo xam ne mu ñu ko wax rek xam nga ci ñu war koo doxalee ñu doxalee ko ñun ñu koy xaar parce que bëggatuñ ko xam nga jàpp na élection yi même bu toxaloon fii ak 10 sax yàlla xam ne ñun suuf nañ ku mënta andi rek dina mel ni Amadou Ba si ñoom waaw ñun loolu wax seen yi quoi ñu gën a xam nga focus rek ci affaire yi quoi kontaan naa yéen tamit a a a ndax ndax xol bu naqadi quoi ak am gàcce ci ci suñu réew mi nu muy doxee quoi nu muy doxee moom dara dara dara moo ma ci neexul quoi vraiment. tey ba nga xëyee nga gis Macky Sall la génn waxee nii na naka la la def. waaw métti ma rek ba pare métti ñëpp ñëpp la métti parce que tey xolu sénégalais boo gis maanaam nit ñi nit ñi nit ñi ñëpp euh, koo gis muy dox nii naqar lay doxee quoi parce que lii moom mooy yëfu maa tey essiant dégg yëfu nguur gi. Euh, bëggul ko bàyyi daal man ci sama gis-gis bëggul bàyyi Sénégal ci allahumma salli ala sayyidina Muhammadin quoi parce que li muy def nii maanaam dafa ñaaw daal ba pare dafa ruslu essayé dégg ci suñu réew mi parce que ñun ñoo ko fu fu mu toog noonu ñun ñoo ko fa Sénégalais yi ñoo ko wateel fal ko pour mu jiite ñu koi vraiment 12 ans mu toog ko ci suñu réew mi yi dégg élection jot mu bëgg ko puusaat puus na ko sax ba pare. loolu moom yëfu maa tay la yëfu yëfu maa tay la loo xamante ne na neexul kenn na kenn la neexul surtout man mi man moom neexul ma benn yoon quoi waaw. mais jàppoo ne lii mën na am lum def si dëkk bi. ah bien waaw parce que lii lépp lu fi mën a nekk ci dëkk bi tamit lu fi mën a am tamit moom waru ko bett warul bett kenn. waaw warul bett kenn parce que ku toog tamit naan sama yoon nekku si sa yoon dina si nekk parce que fu jëm ëllëg luy xew ci réew mi kenn xamul quoi. waaw kenn xamul mais nag vraiment li ñuy ñaan mooy suñu kilifa diini yi nañu génn ñu wax parce que réew mi ñun ñi ñëpp ñoo ko bokk ñoom den see am cër suñu waxee seen wax ñëpp den koy déglu kon war na nañoo génn ñi wax échange dégg ñu xam ne carrément ñoom maanaam euh, seen i njaboot ñoo nekk ci réew mi te ñun dañoo am naxar koo gis muy dox dafa am naxar échange benn pexe nag ñun lu ñuy def pour faj ko maanaam Do, do, do comprendre daal mais ñoom daal instant ñoom ñoo war a génn ñuy wax instant dégg parce que luy dëgg ak luy yoon ñoom xam neen ko. ñu gisoon ne Ousmane Sonko am na ay vidéo yu génnoon fan yi ñu gisaat ne que si biir vidéo yi na am vidéo yoo xamante ne des na jàppoo ne vidéo yooyu nga xamante ne na moo waral euh, Macky Sall am doxalee mu non du du man lu gis mooy que dafa am la sanga dégg xam na ne carrément perte na élection yi maanaam même mbërëm tey ji su demee élection sax du gañee dara dara dara loolu daf ko leer naññi ci boppam dafa lebluwul nag lu rafet moo tax bëggul ñu bàyyi suñu réew mi si jàmm ak salaam mais su fekkoon leble na lu rafet essange dégg dina dem si njekk ak tiranga bàyyi ñu suñu réew mi si jàmm ak salaam quoi mais lu mu leblee moo rafetul essange dégg xaalisu askanu yëpp yàq neen ko di rey ay doomu jàmbur di tëj ay nit ci loo xamante ne yëfu maa tay la loo xam ne doonoo ko ci sa maam doonoo ko ci kenn sénégalais yi ñoo la ko dénk nga war a gore quoi te nag mu xam ne plupart moom lii moom kenn ko ko baalul amul benn Sénégal boo xamante ni baal baal dina ko baal lii nii parce que ñëpp la tooñ ñëpp ñëpp la ameel tamit àq quoi. ça bi. waaw maa ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay. ma euh, man Abdallah Yakhine Diop laa tudd. Abdallah li nga xamante ne Macky Sall wax na ko tey ci suba. ah mais Macky Sall peut-être que man je me dis que ni man de ak sénégalais yi bëri penser quoi parce que je me dis que peut-être moom am a ay raisons pour aussi demander report parce que bu ñu xoolee manquement yi am si processus électoral bi yëpp. est ñu Karim euh, dañ ko dañ ko laisser. jël ay yeneen candidats qui ont ni double nationalité qui ay am triple nationalité ñu daal di leen valider kon ça ça mérite des des des des questions man nag bëgg naa bokk sénégalais yoo xamante bëgg nañu xam aussi ce qui s'est passé au au juste mais est-ce que xalaatoo ne loolu mënoon nañ kaa lijjanti avant. non bien euh, bien vrai que mënoon nañ ko lijjanti avant mais tamit aussi euh, puisque demee na nii man je vois que ni ñu reprendre processus bi pour ñëpp mën a bokk ñu xam lan moo xew au juste ak complot bi le PM ak conseil constitutionnel man je suis pour je fais partie des sénégalais yo xamante dañ ko bëgg xam ce qu'il en est ak lan mo xew lolou la bëgg man.